Euh, am téléspectateur RDV waaye internaute Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal euh, ni ñu ko defee woon ci challenge foot euh, Boxon Events ñawaat na ci beneen façon tey dîner de gala la ñu woote dîner de boo xamante ni pour départager équipe yi la dañ doon def suñu tirage pour équipe yi nga xamante ni ñoo war a tase ci tournoi bi nga xamante ni le 11 la war a commencé jëm le 6 octobre incha allah ngeen ci ànd Boxon Events initiateur bi mu ngi ni sama wet muy Bokar Ka dama koy bàyyi mu daal di nuyoo après ñu daal di continuer waxtaan ak moom euh, ci concept bi euh, ci lii nga xamante ne moom la initié teg ko rien que pour rek euh, bëggal jeune Sénégal ndax ku ne xam na Sénégal dañu bëgg football ba pare mu nekk suñu passion surtout jeunes yi donc tey bu ñëwee taxawal lu mel nii dañ ci kontaan accompagner ko ndaxte vraiment initiative bu rafet la ndax depuis début ba tey defe naa dara rëccu leen te mu ngi nice dama koy bàyyi mu daal di nuyoo après ñu continuer waxtaan ak moom Bokar nuyu naa la. Euh, waa Dakar Buzz di waa RTV di nuyu ñu fi fekk ñu fi nekk ñëpp. tey ñu gis ni que euh, tournoi bi dafa dooree challenge foot defe naa ne ñëpp gis nañ ko ci box event mu nekk loo xamante ne une réussite totale lañ ci am vraiment tey ñu ñëw ci diine de gala euh, lan moo la inspiré ba nga ñëw ci dîner gala bi nga xamante ni dañ ciy defaale tirage au sort pour li nga xamante moom nga tax muy tournoi de foot bi war a am le 11 jëm la 6 octobre. waa Fadou kontaan ci question ba parce que boo xoolee ñuy tëgg ñuy def événement bëri na donc ñun bu ñëwee suñu structure dañoo newoon dañoo ñëw pour innover waaw dañoo ñëwoon pour innover donc moo taxoon nekk ñu ne dañuy def euh, challenge foot pour permettre jeunes ku nekk gis sa bopp en même temps ñu def euh, dina de gala pour innover lépp ci innovation la pour def dîner de gala pour permettre euh, capitaine équipe yëpp ñu fekkee ko et def tirage au sort en direct voilà tey ñu ñëw ci Dina Dëgg Laa nga woote pour tàmbalee ko tournoi bi parce que tey tirage au sort bi la woon lu tax nga def choix boobu pour def ko benn Dina Dëgg Laa woo ci say nit woo ci say xarit mais pour def tirage au sort. waaw parce que boo xoolee euh, boo xoolee euh, sport yëpp am na dîner de gala donc dama ne woon damay innover def football dîner de gala pour permettre jeunes yëpp ñu am visibilité ñoom ñëpp xam ne ne euh, dinañ leen wone dinañ football donc match dañ koy filmer day dem suñu plateforme YouTube mooy Box on donc moo taxoon ñu innové ko def ko euh, dina de gala pour permettre jeunes ñëpp gis seen bopp tamit. Ah, euh, pour commencement bi gis nañu que def nga sa tirage au sort mu nekk 16 équipes lan la ñu mën a xaar ci tournoi bi. waaw mën nañoo xaar ay match yu neex match yoo xam ne yu am solo la équipe yu am équipe yu am euh, équipe yu am qualité équipe yu dëgër donc ne ratez pas l'occasion de venir suivre nous xam nga ci ça débute le 11 septembre incha incha allah donc Bokar mu ngi noonu expliqué nga ko tournoi bi naka lay demee mais mën nañu xam tournoi bi naka lay demee répartition bi naka la ndax du 11 lay commencé jëm le 6 naka la tournoi bi di demee ndax match de poule yi dañ koy enchaîner wala. waaw dañuy enchaîner match yi donc euh, on aura 16 équipes au total qui sont qui seront réparties dans 4 groupes de 4. Donc ils auront la chance de jouer trois matchs de poule. Donc hmm. les deux meilleurs de chaque poule passeront au tour pour finale bi lan la ñu mën a xaar foofu comme ouverture bi moo mel nii euh, accompagné euh, par une dîner de gala donc finale bi lan la ñu mën a xaar. waaw mais bu dee tirage au sort moom moom dîner de gala donc finale bi ñëpp xam nañ ne ce sera du lourd donc euh, dañoo prévoir spectacle bu rëy boo xam ne y aura des remises et tout donc je pense que ne gars yi ils n'auront pas regretté de participer ci événement bi. pour participants yi ku bëgg a tournoi bi naka lay demee. waa tournoi yi ko bëggoon participer dañoo dañoo defoon ay publicité def ay ay numéro téléphone yoo xam ne gars yi ku bëggoon participer foofu ngay woote donc je pense que maintenant clôturé nañ équipe bi moo tax ñu def dîner de gala bi waaw loolu woon euh, lépp c'était par des numéros téléphoniques. mais est nga ci doon xaar gis nga ko pour tournoi bi dama la demee. waaw ça va ça réussite pour le moment donc je pense que ñëpp adhéré nañ projet bi ñëpp euh, teewee nañ ko donc euh, ñëpp gëm tamit di remercier gars yi gëm projet bi ñëpp projet est-ce que depuis début bi ak léegi yaa ngi ciy gis benn euh, avancement parce que c'est pas facile du tout pour une première nga ñëw organiser lu mel nii te gis nañu challenge foot ni mu demee réussite la woon dîner de bi aussi ñu ñëw gis ci benn réussite tamit am organisation macha waa côté réussite gis nañu réussite parce que euh, comme ni la ko waxee rek lii rek réussite la la fekk gars yëpp nga woote ñu gëm sa projet adhéré ko. mais bu dee côté partenariat moom gisaguñ dara mais comme que première édition la gars yi peut-être xamaguñu concept bi mais je pense que yeneen édition yi di ñëw ñoom ñëpp dinañ xam concept dinañ adhéré incha allah. Bokar merci beaucoup ma bàyyi la nga tàggoo téléspectateur ak internet yi nga xamante ne di jaajal di jaajëfal internet yi ñuy seetaan di euh, di nuyu ñu fi nekk ñëpp euh, di leen wax nekk tournoi boxon event bu leen ko donc euh, mise baa ngi nii ku gagné dem 1 million. première place dina am 1 meilleur joueur dina am 50 000 meilleur buteur dina am 50 000 donc bëri na ay récompense léegi ku bëgg a saan match yi tamit da ngay abonné ci Box and Even match yi di leen bëgg a jaajëf. voilà mu ngi noonu ak Box and Even euh, Ka moo taxawal euh, projet bu toll vraiment mu nekk loo xamante ni première la fii ci Dakar mais depuis début bi ba ñu ngi gis ni que gars ñu ngi ciy. sawar ñëpp ñu ngi ñëw di daw pour dugg ci donc am na luñ ci gis mu ngi noonu damay daal dem rek xool ñi nga xamante dañu bokk ci tournoi bi euh, ku ci ni capitaine ñu daal waxtaan ak ñoom lépp ci biir RDV ak Dakar Buzz. tournoi bi nga xamante ne moom la euh, taxawal di war a commencer le 11 jëm le 6 octobre waaye comme wéetuñ ci benn yoon dañ ci ànd suñuy grand muy PNG donc defe naa ni bis bi ku ko xool rek defar na boppam vraiment ndax defe naa ñu mel partagé ak ñoom euh, programme wala événement lu mu mënti doon rek sa xel dafay dal ndax ay ndaanaan la ñoo xamante ne macha allah bay nañ seen waar def lu nice ci réew mi dama leen di bàyyi ñu daal di nuyoo ak ñoom mu ngi doon dama leen di bàyyi ñu daal di nuyoo après ñu daal di waxtaan ci li nga xamante ne moo ci dajale piyo ngi tey du ma juum de piyo ngi nii ji mu ngi nii li ma daloon ci tournoi bi fan daluma tey <laughs> Jean <laughs> moo la njëkk tiimal caméra yow <laughs> sànnee yéen a bokk biiru quoi. <laughs> muy noonu ma bàyyi fii daal di nuyoo. mais nuyu nañ la sister di nuyu aussi waa RDV di nuyu site internet yi nga xamante ne yëpp jël nañ décision gunge projet bi. donc c'est Pi l'un des jumeaux l'autre jumeau il est là à ma droite ji. c'est un immense plaisir de participer à ce tournoi si 16 équipes yi. donc on n'a pas hésité quand on nous a appelé on n'a pas hésité à venir contribuer bien sûr à ce tournoi parce que ku xam xam ñu si domaine culture mais aussi xam nañu domaine sport tu vois dañu bëgg sport raison pour laquelle Ligue des Stars yëg nga ko y a deux ans organisé woon nañ ko avec seize équipes euh, ren tamit ñu organisé waat ko deux ans de suite tey ñu ñëw organiser kenn organiser benn tournoi ne PNG euh, dama leen si bëggoon boole donc ça c' est une fierté c' est une fierté pour ñun ñoo bokk si seize équipes yi di ñaan tournoi bi démarrer et dans de bonnes conditions et puis aussi dans d'excellentes condition loolu la ñuy ñaan voilà. voilà puis nga gis concept bi nga xam Bocar moom la taxawal ban gis-gis nga ci am. lu nekk jeune nag nekk une première te ku ne xam na ni tout début est difficile aussi. voilà voilà donc c'est une première pour lui déjà nga ñëw gis organisation bu mel nii c'est quelque chose benn tournoi am dîner de gala invité PNJ mu animé ko invité artiste bu siiw El Hadj mu ñëw euh, tëgg ko. Euh, def benn dîner boo xamante ne suivi de dessert donc lii rek neex na tournoi bi ñëwul te lii rek neex na donc loolu la loolu la am lu ma mu ngi noonu ma ñëw ci ji ji ma bàyyi la nga nuyoog téléspectateur yi ak internet nga xam ne ñu seetaan. CR7 a ngi nii CR7. yaa ngi gis maa ngi nii. gars yi daal dañ leen di am problème dañ leen may dara dañ leen di jàpp ñëpp rek. mais nag xoolal da ngeen di def nànk rek nag da ngeen di def nànk rek. def nànk affaire yi gars yi foog nga jàpp di ñeef comme xam nga jàpp di ñeef. ah ni ngeen def ay ñoom Baye Sall ay ñoom Henri Camara Faye doo leen ko def xale <laughs> euh, sa gis-gis ci li nga xamante moom la boo ko taxawal muy initiative boo xam euh, avant may démarrer damay nuyu jabar ji tamit nga xamante ne mooy Rama te suñ ne góor boo xamante ne souvent jigéen mooy nekk si ginnaawam di ko épaule di ko dooleel donc mu nekk initiative bu nice États-Unis la nekk mënoon na ne waa xaaral ma toog foofu lekk sama xaalis job mais dafa ñëw Sénégal ne xaaral ma créer benn affaire ah euh, invité jeunes yi gars yi participer ñëpp benn instant mu indi ay caméraman indi ay affaires yu bëri donc mooy participer développement seen quoi mm-hmm. donc muy initiative bu nice nu en tan que PNJ dañu yàgg di organiser tey kenn organiser dañ naan enfin o ñu noppale ko dem participer ko parce que yombul mu nekk xale mu ñëw taxawal lu mel nii ba pare ku ne xam na nii lii mu def nii yombul génn sa xaalis financé woo ay artistes bi nga xamante ni xaalis bu weex moo koy génn aussi yeah déjà loolu déjà yombul comme pii sànq wax na ko indi ay El Hadj Keita dîner bi fii donc ça déjà c'est di jox gars yi rendez-vous ce lundi PNJ ñooy démarrer compétition bi defe naa ñoo koy tijji na ñëpp ñëw support Boxon dooleel ko mi fa PNG fans PNG yëpp invité nañ leen lundi 20h c'est les vacances c'est l'été il def seen short ñu déggoo ñoo bëggee foofu ak Boxon Events. nee du yomb PNG du ñu dara parce que ñoom miin nañ tournoi miin nañ football ñii ñëw nag ñooñu laay xalaat ñi war a bu ñu génnee puis ñu maye ko wala ñu yenj ko wala dañ la voilà mu ngi noonu comme d'habitude PNG fu ñu nekk ambiance euh, vraiment